yaa Yacine wax Asma wax yow nga wax ma wax ñëpp wax ñu tënku daal di jël way document yi ñu dañuy jëm jébbal président à ah, dialogue bi kat lii la fa waxtaan lii la ñu décidé nangam nangam sur sur tel secteur lii lañu wax sur tel une façon de demander aux gens presque d'administrer une façon de dire à d'autres personnes venez nu proposer quelque chose boo xamante ni ñun bu boobaa ci la ñuy sukkandiku pour proposer quelque chose au Sénégal loolu lay xaw a loolu nag une partie de l'opposition dañ ko xaw a njort xaw ko ragal te bugguñu li ñu naan ku la woo laaj la sa xalaat ci mbir mm-hmm. dama am projet mm-hmm. yow loo gis mm-hmm. sa projet la mën naa la xelal léegi man bu ma la nee man sax am naa projet beneen bii la ak bii ak bii nga xëy bis jël sama projet mettre ko en place ba pare ne ma xam nga suñu waxtaanu keroog ba yooyu la opposition bi di bañ ci benn fànn donc li leen xaw a bloqué tuuti mooy les termes de référence mooy que tey da bëgg ñu wax ci plan Sénégal émergent te plan Sénégal émergent boobu li ngeen ci gën a fësal mooy croissance bu yokku soi-disant d'année en année mais une croissance biaisée boo xamante bu yokkoo it ñeneen la yokkal yokkaluñu ñun. Mhm. donc ci cadran boobu les gens sont un peu bloqués ils ne dialogue bi ndeysaan baax na yàlla na yàlla mottali ko. Mhm. mais amul sens ci contexte bi. mais aussi pour te rejoindre Pape comme li nga wax dialogue bu fekkente ne da nga koy woote da ngay tenir compte ci opinion ñeneen ñi mais bu fekkente ne yow da nga ne da ngay euh, woote dialogue ba pare bu ñeneen ñi proposé doo ko accepté hmm? donc loolu tamit cela pose problème hmm? looloo tax moom hmm. mooy difficile dialogue national moi je dis non dialogue national amu fi donc euh, lu tax dialogue national amu fi parce que on on dit souvent dialogue national dialogue national. Mhm. mais ñi composé dialogue boobu ñan la. c'est hmm. la première question donc moi. Euh, nangu naa ñu woowee ko dialogue politique. Mhm. ndaje politique te su fekkoon sax. jërëjëf te ndaje politique la. Mhm. mais dialogue politique sans Abdoulaye Wade. dialogue politique sans Idrissa Seck. Mhm. dialogue politique sans Ousmane Sonko. nga xamante c'est des acteurs yoo xamante ne nii. Mhm. wàllu politique ci Sénégal kenn mënu ko wax te tudd ñu ñooñu. mais mhm. lan lay servir kon dialogue politique boobu moi je ne parle plus de dialogue national moi je parle de dialogue politique parce que dialogue national amu fi. jëlal sa micro asma nga wàcc sur le terrain nga demander sénégalais yi lan mooy terme de référence du dialogue xamu na ko donc moi je vois mieux que ñi nga xamante ni nii entre bi ñooy woote jalo boobu que ñu jéem a fexe lijjante jafe-jafe askan wi. Mm-hmm. Mm-hmm. jafe-jafe askan wi lan la du lenn lu dul seen courant bi mm-hmm. nga xam te ay góorgóorlu la dañuy xarmat ñu wàññi leen ko. dund gii. nga xamante ni nii bokk na ci ñi li taxoon ñu fal ñi fi ne mhm. ndax dañu ko annoncé woon dañ koy wàññi te ba ñu yéegee wàññi nanu ko mm. ñu commencé di koy yokkaat nanu wàññi loolu loolu je pense que moo gën a am njëriñ que di daje di xuloo ay pérjëm ci ab ndaje politique boobu nga wax moi je pense je trouve euh, que ñoom ñoom lay jëriñ entre ñoom kese waaye nañ ci kii ca askan wi la bu baax a baax ñu bàyyi rek euh, Pa Assane nga ñëwaat ñun euh, ci li nga xamante ni mooy euh, lëkkaloo bi am diggante gendarmerie ak police. gendarmerie ak police je dirais pas je dire plutôt li diggante bu rafet la. bu baax la boo xamante ni dama koy effleurer rek wax ne ñu ngi ñu ngi boole seeni force pour mën a jàppale askan bi. ci sécurité lu baax la lu ñuy félicité la suñu autorité bii di ministre de l'intérieur ak ñi mu àndal loolu duñ ci sori et c'est quelque chose de normal aussi asma loo xamante ni yoon la bi ma gën a intéressé sax boobu dama koy parce que euh, gendarmerie euh, force de sécurité yëpp euh, douane police heure bu ñu àndee bu ñu ne ànd nañu répétition la. Mhm. presque redondance la c'est normal. loolu du événement du info mais mën nañu ko noter lu baax la vraiment félicitations bi ma bëgg a wax tëjee ko mooy coronavirus ba leen nekk ca Chine asma. Mhm. asma on est à bientôt cinq cent morts en Chine bientôt cinq cent morts pneumonie en fait pneumonie presque accélérée la. loolu mooy mooy mooy souci bi moo tax ñuy def masque yeeg tout ce qu'on la Chine seen président bi seen seen kilifa bi wax na wax na ñu agence de presse sénégalaise nee nañu wax na ak président Macky Sall mu koy rassurer et tout que vraiment la Chine est en train de régler le problème waaye li li titre laate bu gën a fort Ebola graaw na. na eh. waaw li li si li si xaw a daw yaram mooy gis ay borom njaboot di wax di wax seeni njaboot yu nekk foofu di saraxu président bi pour ñu jëli leen. xam nga tey ñoom chinois yi dañu jël décision ci la ñu jëm ñi nga xamante ni dañu am feebar bi ñëpp te te ñàkk ci seen bakkan dañ leen di incinérer. maanaam leen. ba ñu nekk cendre alors bu ñu dégloo bokk yi nekk fii Sénégal di wax ci seen njaboot ak tiitaande gi gis nañ gis nañ benn parent bu wax ba jooy parce que simplement xale yooyu dañu daf dañu très sénégalais ay étudiants daanaka discours président bi démb. Mm-hmm. bërki démb du mooy dafa offusqué. benn yaakaar bu tas moo xam nga nit ku nekk ci jafe-jafe kaay leen wàllu di dégg nit ñi. Mhm. di wax ñoom dimbali leen ma. teg nit ñi taxaw ne ko ñun mënuñu la dimbali. muy muy gis musibaam di ñëw. Mhm. lu metti la. mais est ni nguur gi dafa taxaw objectivement le président a duma leen dimbali dafa peut-être wax yi ñoo matagul et aussi que euh, indirectement ah yaa se passe tu sais tu sais problème principal bu gouvernement bu Sénégal mooy communication. wallaay wallaay depuis ah. ba ñu fi toogee. ils ont un mm-hmm. problème réel de communication. nañu jël mm-hmm. yaa seen seen wet mu communiquer leen. par exemple parce que communication surtout surtout en situation de crise en situation de crise <laughs> il faut savoir communiquer. effectivement xam looy wax. Mm-hmm. parce que opinion bi ku ci nekk ak interprétation. donc booy génn di wax waxal lu leer. man daal euh, euh, Eva Marie Coll Seck namm naa ko. tout le monde eh, merci waaw xam nga li muy wax nii virusu Ebola bi bi mu xewee Eva Marie Coll était ministre de la santé mm-hmm. dégguñu président dégguñu keneen c'est Eva Marie Coll qui communiquait avec tout le monde ça se passait elle a pris la directive mm-hmm. ak mm-hmm. habileté boo xamante ni ñun Sénégal dund nañu dund nañu Ebola bi te amuñu si psychose dunduñu ko ak psychose lu ñu doon def lu simple raxas suñu ay loxo dem na ngeen raxasu bu ngeen wàccee def leen lii bu ngeen duggee seen kër def leen lii elle a géré ça comme ça Mohamed mm-hmm. noonu la ko géré de sorte que amul nit ñi affaire bi ñëw na ba jàll dem amul ci jafe-jafe mm-hmm. juste une seconde mm-hmm. nguuru Sénégal Mohamed a été pertinent en parlant de communication 2012 à maintenant dañ ci am jafe man li ma jaaxal ay spécialiste en communication Mohamed ñoo war président bi ñoo xamante ni stratégie en comme tey ñun bu ñu toogee di si wax ñoom bokk nañ si ñi ñu ko xamal donc après ñu ne ñooñu ñëpp ñëwoon président waaye nag xam-xam ak xam-xam dafa am lu ko gën. xam-xam. jikko bu rafet. maanaam tey nit mën naa doon sax ab ignorant waaye jikkoom rafet. Mhm. bu jikkoom rafetee. bu mhm. gisee asma danaan ko lii lan la. Mhm. ne yaasin lii lii lu muy defar ne bu yàggee mu am mu xam. waaye ki xam ba pare. mel ni man di matt di la déglu daal maanaam. kooku. kooku du dox jàmm. waxin la ak déggin. na sunu nguur bi dimbali ñi nekk Chine. tey Sénégal am na relation ak États-Unis ak France ak keneen waa États-Unis ñu ngi jëli seeni nit. ak keneen ak keneen. man am naa relation ak yow. am naa ay ressources. am naa loo xamante ni loo yow soxla nga ko. ma ne la sëñ bi sama mbokk yi nekk fële. sa avion boobu di jëli sa mbokk yi. defal ma leen ci ñu ñëw te loolu mooy dëgg. dëggantaan collaboration. loolu mais mais Asma baal ma de mais il faut juste souligner euh, Pa Assane que il faut saluer l'initiative du groupe des médias. oui oui Bougane qui veut qui veut contribuer des médias qui euh. veut quand même ponk état bi tàggatémbe nañu maanaam mënul ñu rapatrier treize étudiants moom groupe des médias se charge avec les sénégalais. mënaguñu de gérer cela. pour que ñu mën a andi que du du gulen ah. les Rohingyas on inondation bi à travers la fondation c'est excellent je félicite Bougane pour loolu par contre par contre je, je le félicite ah. rafet na c'est louable lu noble la mais mais c'est un problème que l'État seul Mohamed oui. l'État seul peut régler lu ñu ci jéem a def def def y a que l'État qui peut régler ça. non mais oui mais loolu loolu dafa nekk information bu bees li nga ma wax nii yaa ma ko a jottali. donc dama bëgg mu leer. waaw non c'est clair c'est parce que xam nga euh, bugg euh, groupe de médias la à travers euh, fondation Sen Action dafa tàmm di def initiative yu mel nii c'est-à-dire depuis 2012 gis nañu inondation yi nu mu fi nekkoon affaire bi doon si cause kenn xamul lu muy kii léegi nag Sen Action à travers le président Bougane Gueye Dany adhérer les sénégal parce que Sénégalais am na nañu xolu dimbali mais xamuñu. nan nan la leen di organiser pour ñu ñëw participer. Mhm. alors seen action fondation seen action woo sénégalais ci ñu participer à travers lu nu mën. 1000 mhm. francs xeebuñu 5000 francs xeebuñu ba bu jur ay millions de francs CFA. je me rappelle à l'époque le premier ministre euh, d'alors je je pensais je pense que c'était Abdoul mbay si je ne me trompe en collaboration avec euh, borom euh, fondation Sen Action jël xaalis boobu dem jébbal ko ñi nga xamante ni loolu woon nanu ci mbënn mi et que mu règle problème bi bu réglul woon à cent pour cent problème bi kon xawoon na soulager kii mhm. euh, li Pa wax Rohingyas yi mhm. ñi ñu doon faat kenn dimbaliwu leen moom ñu bëri dañu